alors dama koy bëgg sax nag wax dëgg yàlla damay seetaan ay pièces de théâtre yu bëri damay dem di leen seetaani di leen toppi semaine passée dem naa seetaani yaraax benn pièce boo xam ne bu ma neex la am na liggéey waaye des fois ma dem ci benn salle wala benn quartier seetaan théâtre après damay gis man personnellement bi may am ay 17 ans 18 ans donc damay gis ni dafa stagné bougé wul et ça ça fait ça fait mal Sénégal amoon na troupe yoo xam ne bu ñu ñëw Sénégal activité moo leen indi mooy dañuy tourner di tourner ba tourner bi laal Sénégal ñu ñëw jouer xëyaat dellu parce que boobu théâtre foofu la toll woon. léegi nag festival yu mag yëpp doo ci gis Sénégal parce que actualiser wuñu seen niveau théâtre boo xoolee na nga ko xool li may wax ni c'est vérifiable festival yi gën a mag théâtre tey le Sénégal participer wu ci ah preuve bi moy biñuy dajé dajee ki dem euh, am émirat arabe la xawma wa waa iti ah euh, institut interna de théâtre international Sénégal benn sénégalais demul te àdduna bi yépp dem nañu mais amul ben représentation Sénégal dama kay def man ma def série na fi mako bind fi bi doon daw TFM ba maa ngi wala war mo wax TFM wax naa TFM maa ko bind man <laughs> waaw maa ngi def. Euh, ni ko suñu wax xam nga des fois da ngay dégg sax kuy wax théâtre sur scène pourquoi sur scène le théâtre sur la scène théâtre sur scène def théâtre sur scène am amul théâtre bu sur la scène théâtre sur la scène théâtre sur scène audiovisuel cinéma genre alors opté il faut que nit ñi xam affaire un personnage du cinéma est différent d'un personnage euh, théâtral Et am sax ay pourcentage quand tu fais le théâtre yow personnage bi yow comédien bi yaa ko porté yow doo dem ci petit moment lay il si xam ndax li mu wax leer na le personnage yow yaa koy porté y a ci yow yaa koy dundal amul yaa koy jox sa loxo yaa koy jox sa tank, yaa koy jox tout. waaw ba pare su ñëwee une formation lay lay lay dox ci lay def lépp alors je disais que personnage cinéma yaa fait fekki mais suñu jàngee théâtre ñi jàng théâtre là wax dañuy xam il faut la personne d'abord mooy yow nit ki ta personnalité d'abord avant le personnage théâtre loolu la la wax balaa ngaa jël benn personnage na nga xam yaay kan est-ce que ce tour, ça sant sa sa yaay sa papa say koñ nangu na personnage bi nga war jouer ta personnalité mooy ban responsabilité nga am ci dox ci gox

soo ko assumé nak assumé ko waye ñun dal suñu milieu ñu ngi jang affranchissement des lignes lan la mëna dépasser lan la lan la mëna a lan la mëna a les limites moy fan la mëna taxaw à partir de là je peux plus bouger mënatuma def lenen ndax suba nga bañ tilimal sa bop bañ jang nañ ko ñoom ñu ñëpp jang nañ légui nak keneen kiko jangul jàngul mënul xam lolu mënu ko xam.

des nga gis nit mu ne man gis naa ko dóor jabaram ba teg tànkam ci kaw ombam pièce bi nii egg na foofu waa ji dina jël tànk bi teg ko ci biir ci biiru ndaw si nga gis ku ne la sama jëkkër daf maa jam wala jigéen bu wax ni sama sama jëkkër dama dama dama dama dama dama dagg ay bagaasam bàlleen ba ci loolu moo wax <laughs> des nga dégg détail yooyu yëpp mais pourquoi li war a neex après mu naqari moo tax mu tudd promesse mooy li ñu diggante ci commencement bi ngeen gis ko kii dig na kii lii kee dig na kële lële mais pourquoi respecté wuñu ko beneen affaire bu gën a grave bind naa ko ci pièce bi soo doon soo ko doon liir ci présenta pièce présentation pièce bi da nga koy gis dama ne même ñun suñu demee ci takk yi man jullit la suñu demee ci jàkka yi di takk ñaari way dencante yi nekkuñu fa waaw nijaay ji day promettre baay bi dara baay bi promettre dara nijaay ji te ñaari way dencante yëguñu ko bu ñëwee duñ leen ko nettali ndax dañuy fekk ah waaw loolu mun naa toj sëy bi sax te ñoom duñ ko xam est-ce que baay bi waxul woon soo saagaa sama doom sëy bi tas na kii ne d'accord naa ñu xut ba loolu kon contrat bi mooy su ko saagaa sëy bi tas na ñu sëy deux ans kii juum kee saaga ko est que kenn warul dellu parce que ci xutba bi moo nekkoon bokk na ci soo saagaa sama doom sëy bi tas bon yii duñ ci bàyyi xel kon dama ne li ñuy diggante nañu fexe di ko def xam nga olof dafa wax waxteel mu jugi rafet ku jigen ki yene moy mu seyel ko naka wax ni dama ka yene nga baña joxe promesse ne dina ka def nga wax ni dina ci jéem yu bari ay promesse la yo xamne ne duñ ko tenir suñ ko tenirul da fay indi ay ay problème yu bari te kat wax deug yalla gor ñi amna ci ñuy sonal jigen ñu lu bari jigen ñi tamit amna ñuy sonal gor ñi lu bari lu bari bari alors du coup motax promesse il faut ñu man amna sama ben xarit bo xam ne comédien bu sew la léegi ni dafa ne dafa extrême ma ne ko waa foofu mu egg mooy métit bu nga xam ne ku ko seetaan da ngay jàpp ni non lii nag rafetul waa conseillé na la yow yow góor bi ko seetaan ne waa ji dama laa mere ah xanaa boo ñibbee di nga di nga di nga wàññi lii laaj xal lii laaj ci bëggoon na ngeen ma baal. oui am na ci bu baax a baax a baax xoolal pièce bi su demee ba ci kanam nii day tourné day wëlbatiku bu wëlbatikoo da ngay gis ni ndekete waa ji moom yorul dara amul kër amul oto amul amul dara. ndaw si moo ko yor léegi nag su wëlbatikoo su ndaw si jekkoo est dina ko baal wala du ko baal ñoo leen seetaan